la candidature des euh, femmes d'abord ci jigéen ñi. femme yi moom ñu ngi nuyu Nangaan man maa ngi nuyu waa Ngexor. maa ngi nuyu waa Kamp maa Ngexor baax a baax ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. 2024 euh, moom femmes yi euh, du ñu mën a jouer rôle bu am solo il faut être réaliste. waaw ah fu mu toll nii amul benn femme boo xamante ne mën nga jouer rôle premier rôle espérer gagner élection yi parce que la politique c'est du réalisme. tey soo xoolee tey ñu fi ne bëgg nañ. jël ñoom ñuy déclaré wu kenn espérer wu kenn mënuñu. xaar kenn kenn mënul espérer. ne mën nga gagné élection yi. parce que réalité politique Sénégal ñëpp xam nañ ko mooy. dafa am appareil politique am liggéey boo xamante ne da koy def. Mhm. soo ko defee ba pare wax ak sénégalais yi sénégalais yi xam la nga proposer say euh, solution. Mhm. say idée et puis nga mën a espérer jouer les premier rôles fu mu toll nii ñoo xamante ne mënoon nañu espérer. jouer les premiers rôles peut-être na Touré mais su desoon si Macky Sall peut-être Macky mun na ko tànn wala mu ah, bokk si photo bu ñu wan sànq mais position yu mu jël moo nokk position yoo xamante ne baaxul dafa bëggoon lii joxuñu ko ko mu gedd dem fële loolu moo tax mais amoon na parcours boo xamante ne mënoon na espérer utiliser benn appareil donc la réalité actuelle femmes yi fi nekk tey ne dañu bëgg euh, nekk président dañu leen wax nañu bokk wax seen idée jéem a convaincre mais bu ñu espérer ne prochain président Sénégal jigéen lay nekk xanaa Macky Sall tànn ab jigéen boo xamante ne dina ko jox appareil benn bokk yaakaar campagnal ko kooku mun a bokk ci chance yi mais ko amul appareil boobu hmm. amoo euh, background boobu franchement pour nga mën a xëy rek nga ne da ngay bokk wala di nga am parrainage sax dañ koy wax parrainage surtout benn kii rek laa bëgg kuy mooy euh, ce qu'on est en train de dire des femmes yaa a x hommes. oui aujourd'hui plus même que les femmes. ñuy dund cette réalité là. effectivement waaw c'est juste pour éclairer que. waaw mais mais au final au final. au final parce que non. Uh-huh. s'il y avait zéro homme. ce serait pertinent lu ngay wax. mais lu ngay wax du am pertinence ndaxte. Uh-huh. au final. Uh-huh. sur le podium. y aura des hommes même s'il y cinquante mille hommes yu amul critère yooyu. y a dix hommes. yu am critères donc dans tous les cas. fekkoon ne nag. am na yeneen dix femmes yoo xamante ne même critère y a pas mm-hmm. la réalité c'est que aujourd'hui mm-hmm. ñu ñuy wax ne mën nañu remplacer Macky Sall mm-hmm. si góor ñi la nar a génne maintenant comme lu may wax suñu bëggee ab jigéen espérer waa Pastef nañ tànn jigéen waa taxaw nañ tànn jigéen waa APR nañ tànn jigéen c'est des appareils yoo xamante ne am na lu ñu liggéey ba pare mais ku ñëw amagoo appareil boo xamante ne tey da nga xëy nii rek ne bëgg naa sénégalais yi c'est pas parce que jigéen nga duñ la tànn non non non parce que politique moo am réalité ak dëkk boo dem ci àdduna. Euh, Ségolène oh, Royal bu nekk candidate France parce que elle porté par le parti socialiste mu dem deuxième tour donc tey Sénégal fekkee daa am ñoo xam ne dañuy militer pour élection yi jigéen ñi fës fi lu ma leen di conseiller mooy ñoom nañu def pression. si président Macky Sall mu tànn jigéen. nañu def pression si waa Pastef ñu tànn jigéen nañ def pression si waa taxaw wala ñaa ñu tànn jigéen. tant que defuñu loolu c'est des rêves debout. mais concrètement l'élection pas, se fera pas, avec les mhm. candidats mmh. qu'on déjà maintenant s'il y a cinquante hommes yoo xamante ne bëgg nañ parce que y a des milliers de gens qui se disent candidats te mënuñu sax am parrainage loolu c'est la réalité aussi mais aussi euh, la réalité c'est que ñu ko mën a am nag euh, ce sont euh, mooy mooy góor ñi